jërëjëf sëñ bi li nga leeral ah, am na solo comme ni nga ko waxee ci aaya ba rek kon koor boo xoolee yëlla ji yëpp moom mooy ñu ragal yàlla ragal yàlla ndax inna akramakum indallahi atqaakum mm-hmm, mm-hmm. nag nit ki mënu mënoo dund nekk ab julit te ragaloo yàlla mm-hmm. kon lii su borom doo ko nekk wasila boo xam ne dafay nañ a jaar pour mel na ni euh, docteur <coughs> li nga xam ne moom la sañ bi wax euh, nga def si ay taxalixaat ay leeral ci li nga xam ne moom mooy koor gi incha allah macha allah jazakumullah xeyran ñuy santaat euh, sëñ Ahmed Niang ci leeral yooyu xanaa fa mu daane la rek xëy na fa laay jële ndax xam naa ne euh, li tudd ci ragal yàlla da ngay gis ni koor dafa am jubluwaay bu mag boo xam ni moo tax yàlla farata jubluwaay bu boobu mooy lan mooy nit ki mën a gën a ragal yàlla mën a gën a bàyyi xel digganteem ak boroomam bàyyi xel digganteem ak moroomam bàyyi xel digganteem ak boppam mhm. hmm. mën nga ni sax nag li tax yàlla farataal weeru koor mu nekk ponk ci ponki lislaam yi finalité ba du lenn lu dul mu mën caa jële ak ragal yàlla bi mu waxee ci alquraanul karim ci suratu baqara mhm. mu ni yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun mhm. yéen ñi gëm yàlla yéen jullit ñi farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataale woon ci ñi leen jiitu woon ñu jiitoon mooy ñi wàcce woon ci ñoom ay téere mhm. yahud yeeg nasaraan yi mhm. ba léegi sax dangay ngay dégg ñu naan kooru chrétien yi tàmbali naa tey lay jeex nànkam mais façon yi ñoo wuute mu ne nag li tax ma farataal koor ci yéen mhm. farataal ko ci ñeneen jiitu woon lenn rekk la mooy laallakum tattaquun sax da ngeen cee mën a jële ragal yàlla mhm. loolu day dëgëraatal li sëñ Ahmed doon wax sànq mhm. laallak asaak yooyu boo ko déggee du amaana dëgg la bu ngeen koy def rek di ko gis dëgg la te ragal yàlla nag ci la lépp ne dëgg la dëgg la xoolal nit ki tey bu amee ragal yàlla yàlla yombal la ay mbiram yëpp wallaahi wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haythu laa yahtasib mm-hmm. Mm-hmm. ñun dañuy xëy di dang dangi ci wërsëg ak lu nu am ak lu nu dépense mm-hmm. yàlla nee noonu ragal yàlla ndeysaan et gis nga ragal yàlla yee saa tey ñun koo taxawoon fixé ba mu yàgg da nga ne ko ragalal yàlla mu mer kii daf may saaga <laughs> mais xool yàlla mi mi jàkkaarloog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak ni ko fonkeeg ni ko bëggeeg ni mu ko nawee mm-hmm. ni ko gënale ci nit ñëpp mm-hmm. parce que moom la def mu gën ci nit ñëpp nee na ana sayyidu mm-hmm. wala di aadama wala fax may ki gën ci nit ñi ma ko puukare wala dara mais loolu mooy li am yàlla jàkkaar la moom ni ko yaa ayyuhan nabi mu yaakaar ne lu na la ko am ni ko ittaqillah uh-huh. ragalal yàlla et puis bu ko ko waxoon sax ci suuf ñun déggatuñu xëy na amul problème. dëgg la ñëpp a koy yéeg ni yàlla nee na yonent bi na yàlla. Mm-hmm. Mm-hmm. bal da ngay jàng alxuraan sax di ko gën a neexal wax ci kaw. Mm-hmm. li yàlla waxoon diw. wala ñun ku ci sa kilifa woon di la yedd. nan la na nga ragal yàlla boo génnee doo ko nettali dëgg la dëgg la dëgg la kon ragal yàlla googu noonu noonu noonu yàlla santaane santaane woon ko yonent yi ñun ñii noonu lañ ko soxla amul benn yonent loolu bi ñëwee wax na xeetam loolu dëgg la te ragal yàlla bin ko laajee Ali ibn Abi Talib dafa ni ñeenti mbir la alxawfu min aljalil والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل nee na ñeent yi mooy ragal yàlla dëgg la di fuglu sa borom saa su nekk ragal ko di jëfee lim la sant ci alxuraan ak sunnam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim la wërsëgal mu tuuti na la doy na la convaincre bul xëcc leneen loo xam ni mënoo koo am wala nga koy wute ci anam boo xam ni dafa xaraam dëgg la ba pare nag saa su nekk ngay bàyyi xel ni fii jaaruwaay la mhm. ëllëg da ngay dem dëgg la ëllëg da ngay mhm. moo tax euh, kenn ci saxaaba yi Abu Hurayra buñ ko laajee ne waaw ragal yàlla day def mu ne ragal yàlla mooy moytuli yàlla mhm. tere boo mu ne boo doon dox guddi gu lëndëm kiriis ñu ne la fii nag dafa am ay dëkk nooy def mu ne damay aj samay yére xol bu baax duma gessu fen mhm. fuma tek sama tank bala ma tek benen ma xol ndax ci dëgg la wala du dëgg mhm. mu ne ko ha wa taqwa ah. loolu moy ragal ndaysan ma sha allah te nag fi lay nek mhm. yonte bi ne ak taqwa haahuna maanaam du tay da koy wax wala nangam mais ragal yalla ci koor gi boo da fay simple nga man ko euh, leral parce que li xamni fi la nek ba nga xamni yow sa bir day gëna rafet sa biti xoolal kenn ku ci nekk ci ñun. Mhm. am na lekk goo xam ne mu ngi sa biir nekk. Mhm. sedd ñu mhm. neex lool ci bëccëgu weeru koor te ñebe woo koo lekk. ndeysaan te wallaay mënoon nga koo lekk ba dem. naan ko génn ni kenn du xam. déedéet déedéet déedéet loo def mais tax defoo ko. nga ragal yàlla sa soxna bi nga xam daf laa lew. nga nekk ak moom. xalaatoo jege ko. dëgg la ci bëccëgu weeru koor te pourtant soxla boobu. li ko waral. ragal yàlla. dëgg la moo tax lii sëñ Ahmed euh, wax sànq. Mhm. boo ci génnee. Mhm. te dollee ko. Mhm. war nga xool sa bopp. mais nag formation la boo xam ni euh, nit ki bu ci génnee jàpp naa ni. dina ca jariñu parce que xoolal li la dagal. nga mën koo muñ. nga mën koo muñ. wax dëgg yàlla boo ci jugee li la daganul war nga ko mën a. Euh, macha allah mu mel ne ni <laughs> am na solo lool. fi nga xam ne fi nga dindee kàddu gi mu mel ne dañuy dañuy dañuy des ci ragal yàlla.